gars ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñii suivre ñu war a ñëwañ ci benn vidéo wax ci match bi de Lamine Camara frappe bu exceptionnel la Lamine Camara dugal comme ni ko Pape Gueye dugalee instant Sénégal moo ma ne Sénégal moo ma ne Gambie li nga xam ne mooy 2 mu nekk nag loo xam ne franchement ñëpp moo ñu doon xaar instant Sénégal war a moo dóor ba 3 ba 4 malgré nag Gambie ñu ngi fubal ñu am ay occasion dem ay contre yoo xam ne mën nañ ci tuer Sénégal mais malgré Sénégal mooy 2 lu mu métti métti métti gëm nañ ne Gambie mu wutul égaliser bu baaxee baax benn bi te gëm nañ fu duggalé duggalé mo duggalé doon kon Sénégal instant yi ñu ci rythme boo xam ne bu exceptionnel la ah ñeen ñaanu bu baax baax ñu continuer ci ba mëna door dóor score bu reuy bla maxi bé jeex euh nga xamné nak tay ah, nam rek mu ñu avancer 3 points bu ko défé am lu jóge ci bop yi mental yi gën a tranquillate ñu dolat ci entraînement yi tam nañ yaakar bu baax Sénégal mi ngi yoonu am ndam ñetti wono pour ngeen abonné ngeen commentaire ngeen xam ci yeneen vidéo ak yeen numéro ak yeen jangar fi mo wono pour bu ñu tayal toujours rek dañuy ñëw communiquer yéen li xew ci max bi wala jox leen information wala ñëw joxe suñu point de vue ngeen abonné merci merci beaucoup am ngeen jaajëf